eh gars yi Lamine Yamal la ngi tëkku Messi de nee na dafa bëgg football contre Messi maanaam Espagne ak Argentine ñu jàmmaar ba mu football ak Messi nan la ko waxee ak nu mbiri demee ak nan la ma si mën a amee match bi sax mën na am forcément. salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant te match boobee ku ko gagné di nga am trophée loolee mooy trophée lan finalissima finalissima nag boo ko déggee mooy équipe bi nga xam ne moo gagné euro 2024 bi ak équipe bi gagné copa 2024 bi ñoom ñaar ñooy daje ku gagné sa moroom yaay jël finalissima boobee. Lamine Yamal nag dafa génn di wax ci mbir moomee nee na bëgg na football jàkkaarloog Messi football mu ngi noonee nee na na ñoom Messi gagné loole di Copa América bi loolu la koy ñaanal waaye ñoom ñu gagné coupe d'Europe bi muy ñaan loolu bu ko defee ñu mën a daje finalissement mu mën a am occasion football ak ñu naan ko Lionel Messi loolu la Lamine Yamal génn di wax nee na j'espère que Messi remportera la Copa América et que je gagne et que nous gagnerons l'Euro pour que je puisse jouer contre lui en finalissima loolu la kookee di Lamine Yamal génn di leeral Lamine moomee nag tey lay célébrer 17 ans mu ngi doone enfin Lamine am na 17 ans 16 ans yi bañ ko dalay wax yàgg na trop waaye mu ngi doone a yokkaat ci moom de ba talent bi du gën a yokk défenseur yeeg gardien yi bii gën a am problème ah maa ngi xaar nu mbiri demee nan la naka la en tout cas Lamine Yamal génn ba ne yaayam ba nii daf koy tere mu génnee tànku nee na loolay wan ne ne xale ba léegi 17 ans la koy doog am tey ji majeure gut de ah am nga am nga ci plein droit de yaay booy ab milliardaire nga koy nga ko nga naan ko du génn bul génn say daal bu bu génneeg tànku ne nag yooyu milliardaire yaay nag yaay yaay yaay yaay yaay gën a kawe lépp ci àdduna doonal milliardaire doonal loo mën di doon ci àdduna waaw lam def ci yow moom mënoo koo dindi ci àdduna waaw moom moom moo la sut lees te doo ko mën a dépasser ba ilaam doonal milliardaire bi gën a rëy ci àdduna doonal président de la république moo lay directionné par la force doo lay baal xanaa mu la nag nga beew waaye lu mu la ak noo mënti mel da koy def da nga ko war a def force doo àdduna dañ nangul suñuy yaay te it topp seeni waaw boo ko defee doo rëcc doo ko rëccu waaw di nga mucc aussi mu ngi noonee gars yi ma ngi xaar ci commentaire nan ngeen gisee match boobu kan ngeen ko jox mu war a gagné mu ngi noonee mais nag balaa kenn di gagné ci moroom ñoom ñaar ñëpp ku ne gagné Copa bi ku ne gagné seeni coupe te Colombie diis na.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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur ci bunt bi mën nañ leen a euh, jox portable bu lépp lépp ah, lépp balaa muy génn ci bitik bi am plus ñu bindal ko facture non mais gars nag loo ngeen xaar pour ñëw ci sam nag fii moom lépp yaa ngi no quoi ñu dem ci deuxième question bi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 am na ñu ma ko doon posé même question bi sauf que intéressant nga posé ma ko yow parce que tout temps yaa ngi ciy yëngu affaire dafa nekk à de treize dañ ko liggéey liggéey bu exceptionnel boo xam ne